Touba rek bëgg si xéewalam rek moo tax ñu jaayante ñëw incha allah lépp dina fi jóge feebar bi lépp yàlla na ko saafara si màggal. sëñ Touba li ko tax a ñëw jamono mooy rambu ñooñam tey rambu ñooñu da koy rambu jii soo ko rambu bañ nee na sababu xelwati an allah arada wa ana lana min hujaaha wan akuna saafihan li xaw wan akuna xaariman fi xaariman fi ram doon ki nga xam ne mooy liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca daw mi doon ki nga xam ne mooy ram ay ñoñam ñi nga xam ne ñoñam ñoñu Sëriñ Tuubaa àdduna ak doon ki nga xam ne moo gën a borom kon ram ñoñam yooyu moo tax Seexul Xadiim ñëw jamono ndax lii nii li nga gis nii du neen nee naa la màggal Touba nit ñi dañoo namoon Sëriñ Tuubaa namu Sëriñ Tuubaa ci xol namu Tuubaa ci xol kon activité ñii daje hasard du hasard di keneen ku ko woote woon kii Sëñ Tuubaa doo dem Seexul Xaddim rek moo ñemee woo nit ñi ñu bàyyi suñu yitte bàyyi suñu soxla parce que moom moom nit ñi. Sëriñ Tuubaa boo xoolee nu mu jaante xam nga mu dem si géej gi mu jaral ko lu ne yow ñun tey bu ñu taxawee naan dina am diwaan loolu xam naa ñàkk gore de la rek mais ñun bu ñu gore woon maanaam beneen fer bu ko doon garab yi sax bu ñëwoon day dem Touba. du ñaax ni bu ñu ñëwee tamit dinañ sàmmante suñuy kàddu ak yow dëgg-dëgg li ñuy digal ak yooyu mesure barrière dinañ ko mais mais nag yow duñu tere yow daal. yoon bi xat na lool waaye nit ñi na def manque dal tey takk masque yi ànd ak mesure ak teg ci tamit mesure barrière yi nga xam ne ni moom la fi li nga xam ni mooy médecin euh, médecin yi joxe. ñu jéem a fagaru rek di raxasu ba set di takk seeni masque di fonk daal sart yi fi tëral loolu rek moo leen si muccal. li may soñ sama bopp di ko soñ sama mbokk taalibe yi rek ñu gën a forlu si yoonu sëriñ bi. te xam ñoon am ñu kenn ku dul moom moo ñu fi desee ndax moo ñu jaral lépp xam nga bu jar bu laajoon tamit leneen tamit dañ koy dewaat rek. souhaité gan yëpp ñu dalal jàmm ci dëkk bi ñu Touba te ñu sàmmanteeg nee nga xam mooy ak dëkk bi ndax sëñ Bamba léppam liggéeyam lépp sont yàlla la. liggéeyam bépp jaayante la liggéeyante bépp ñi jëmm yonent salaay salaam la mu doon màggalu jàmm màggalu naataange màggalu xéewal màggalu tawféex màggal goo xam bu ñu fi liggéeyee Sénégal adduna day delluwaat fa mu nekkoon wala bu daal fa ko dàq fa fi mu doon fa gën a neex muy mbas mi jóge fi économie bi jugaat nit ñi nekkat ci jàmm seen xel yi dal